الله أكبر كبيرا والحمد الله الله أكبر أكبر الله أكبر ربنا maaleykum assalaamu aleykum mbokk yi bés bii bés bu màgg la bës bu tedd la bés boo xamee ne fukk yi nga xamee ne suñu borom moom la giñee si euh, wal fajiri wala yaa ni as kon képp koo xamee ne def nga si ay jaamu yàlla si fukk yi nga wooroon si bésu taxawu arafaat yal na yàlla nangul ñu ñuy ñaan yàlla yal nañu yàlla teggil feebar bii nga xamee ne yàlla moo ko teg suñu kaw ñu xam ne nag lépp lu yàlla def am na lu tax mu def ko yàlla du tooñ kenn nit ñi ñooy tooñ seen bopp kon nag lii armée la si armée yàlla yi yàlla moo ko yónnee suñu kaw mais du moom mu daf ñu tooñ rek déedéet ñun ñoo ko sabab ndax am na loo xamee ne ku ko def suñu borom dina dal sa kaw luy loolu mooy po mooy yàlla bi nit ñaa ngi koy def alanan kenn laa xootul ku mu neex mu ngi def lu la neex mu dem ba mu ëpp loolu ñu dem wut ay mbooloo ay kuréel di ko woote si ar parlement di wax góor mun na takk góor jigéen mun na takk jigéen yooyu yëpp def lu leen neex la def nañu lu leen neex yàlla tamit mu ñuy won dooleem tey kenn amul benn président bu nerat bu ñeme taxaw si mbedd mi kenn ñemeetul taxaw ñoom ñëpp daw nañu lan mooy seen euh, slogan bu ñu yor restez chez vous loolu mooy seen slogan ñu kenn dara yalla nous. ñu kon nak ñu si yalla suñu delloo ci yalla yalla defal ñu yiw nit bakkan dañ koy note bakkan du def lu ko neex su lu ko neex rek dafa am lu mu tek ñun am nu mu sàkkee nit ñuy koy tuddé liberté liberté am fu mu nepp yem liberté do def lu neex lu neexul yalla da nga def lu neex dafa war a def lu ko borom bi digal mais su defee lu ko neex yàlla moom moon yàlla won nañu tey moom mooy buur amul beneen buur bu fi nekk buur yi fi nekkoon yépp ay ay ay ay figurant la ñu woon rek yàlla mooy vrai buur bi kon moom moo ñu teg lii ñu ngi ñaan yàlla yàlla nañu yàlla teggil suñu borom moo wax zahara al alfasadu fil barri wal bahr bima kasaf aydi nnas li yudiqahum ba'da alladi amilu allahum yarji'un jël naa mbugal teg ko seen kaw ndax ñu fàttali ko ma ñu mën a dellu yàlla nañu yàlla boole si ñu ñuy ñuy fàttaliku xam ne yàlla moo ñu ko teg ku nekk ku doon def lu bon nga dellu si ginnaaw xam ne yàlla moo teg lii li ko tegee nag sama bàkkaat moo tax ku nekk na jàpp si ñun bàkkaatam moo tax feebar bii ñëw kon nag nañu dellu suñu boroom ñun ñëpp ñu dellu ñu xam ne boroom bi moom moom suuf bi lu la neex nga def ñoom ñëpp léegi ñu doon wax si woote si parlement yi di wax góor na takk góor jigéen na takk su defee ñu génnee ko si télévision yi ñëpp gis ko yàlla won na leen tey ñoom ñëpp làqu ji nañu ñoom ñëpp kenn ñemeetul génn sooy même sooy def sa conseil des ministres da toog sa kër jël sa télévision wax yàlla rek mooy buur yàlla war nañu mooy buur nañu dellu si moom suñu delloo si moom yàlla defal ñu sutura bés bii nag lu si gën a rëy mooy rey xar soo jëloon milliard nga saraxe ko xar bi ngeen yoo jëndee cinquante mille moo ëpp solo ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla dafa sàkkal bërëb boo xamee ne soo reyee sa xar foofu la deret bi di tuuru ci kanamam moom ñépp mu gis ko képp ku rey di yàlla dina ko gis ci kanamam mu jël ko dencal la ko xar bi ak li si nekk karaw yeeg yépp mu jël ko def ko sa yool donc def loolu moo gën nga génnee xaalis saraxe bés bii baax na ci ñu jokk suñuy meen jokkante yërëm miskiin yi ku rey ak ku am miskin dëkkandoo bu mu nekkal amul dara nga jël ko yow tam jox ko si ndax loolu na suñu borom wax yonent bi sallallahu alayhi wa nee na dee leen nuyontoo dee leen jokkoo seen biir dee leen joxe ay ñam su ngeen ko defee yàlla dugal leen ajjana donc sabab buy dugal nit ajjana lu yomb la génnee si bés bii saraxe yonent bi nee na nag bés bii lu si gën a am solo mooy ñu julli comme niñ ko defee ginnaaw gi ñu rey suñu reyee nag ku rey avant imaamam wala nga avant ngay julli yow am nga yàpp mais amuloo tabaski tabaski dafa am spécialiste xar bu ñuy rey bi dafa am spécial ñu ngi ñaan mu njaboot gi ñi nga xamee ni ñu ngi dundal seen waa ñu ngi nekkal seen waajur nañu jokk seen waajur yi may déggal leen nekk si seen suuf di wut seen ñaan ndax seen ñaan moo leen di jëriñ seen aduna ak àllaaxira bokk baax na si mbës bi tamit ñu dem si jokk si mbokk dem seetu suñuy mbokk képp koo xamee ne am na koo xamee ne am na lu nekkoon seen diggante muy sa mbokk nga fexe ngeen juboo jokkoo yéen yàlla boole leen jéggal leen ndax nee nañu ñaari jullit suñu mere lu ëpp ñetti fan ñooñu suñu jullee yàlla du nangu seen julli ku jéggal ku ñu tooñ nga jéggal yàlla jéggal la ndax yi yàlla moom ku nekk mu ngi koy tooñ ñu dem seeti ñu feebar ñu nekk si hôpital ñu dem seeti ñoo xamee ne si prison yi lañ nekk ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku dem ziyaare ku feebar yàlla dafa yónni malaaka mu ne la yow de li nga defoon si bàkkaar yëpp set nga wutal naa la place bu sell si biir àjjana ñuy ñaan yàlla feebar bii ñëw yàlla nañ ko yàlla teggil yàlla nañu yàlla defal sutura yàlla nañu yàlla may fekkee déwén muy defal ñu sutura ma suñu réew mi yàlla aar ko def si naataange def si barke xale yi yàlla teg leen si siraatal mustaqim ba ñu gis luy sedd suñu xol yàlla nañu yàgg def jaamu yàlla yi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu imaam jërëjëf ñu taaxir li tuuti eh, déglu yóbbalu xalifa bi xaar ñaan